kay di gont di lijjanti dama ko man hmm. man yoruma dara li laa fi yor li lii laan benn juróom fuk mo ne sans poste ku nek xamna ne kaw lak wéru koor day tang jër faatu nga sol ce soir bi ma ne ah, ma jaar ni eh, ci ay way ay way te nga maa bàyyi ma wax la li ma fi indi bala nga tuddu sama soir bi yow mi ya tax suñu papa a way aawo yi te nag loo ci dépp ba mu woyee ñaari li ba yéeg kilibu ko togg na ko tubaarkal ah yow gone gi doom say bor rafet na de ton ah, ah ah tubaarkal ah, tubaarkal waaw ma man yi ma laal ma ci corne bœuf bi tuuti ma xool ba nga nekk ci waaw laal na ma dugg fee ci ruq ba. waaw seet na ma def waaw. nañ ci xëpp 10 000 yi. bu ca xëpp 10 000. xoolal xëpp ci junni bi. xëpp ci 10 000 yi nga jël ñaar ma si laaj laaj laaj lañ gañ kese. Aliou. xam nga ni jaay yow kër gi. waaw ñun gisatuñ fi yaay. yaay suñuy lépp. waaw bilaay. waroo di gëj. dëgg la ndey mais yaa maa ngi si koor gi. doom xel kafe gi ñu ne ko. man mii yéen doo woor nga naa ma ku lii la la eh, kii kan kii kan la. wa ma ne kii yow la wala du yow. lii du dëgg montage la. bu dee man la tubaab bi du fayee ko xaw ma naa rek. Hmm. bu dee man la du fayee ko de. ah waaw kon baax ma ko lu ma ko dara jox yóbbu ko sama njaboot gële. wala ma def rek sama kanam gi bokk sax xanaa xolam nee na. wala moo nekk ci junne bi yow. junni dafa ko kii rek. sama kóoru 2024 gi dootuma ko fàtt fi laa yomi diin da ngay woor ba ngoon jot doo am soxloon ndogoo ba xale yi di la teg diin ci mbedd yi nii nga defee lii jaadu na man lii